mu j'ai pas le choix billahi barke rasulaay dentifrice Fris, ñuy def détail balaa may Sénégal fait partie des pays les plus pauvres ñuy casse. billahi wa affaire yéene ay jaam billahi yéene ay jaam balaa may bu organisation internationale génne ben document ne Sénégal fait partie des des vingt pays les plus pauvres wala des 30 pays les plus pauvres wala des 50... personnes les plus pauvres wala ñu la région la plus pauvre Nous avons des documents nous expliquer di l'aim, di justifier a des jom pauvreté du ay chiffres pauvreté xam fan nga koy xoolee li le Cheikh Barre Ndiaye wax dentifrice dentifrice vous ñu ba du ko vous avez des nga y'a problème dentifrice parce que vous bi sax

Nous ko salaire bu baax ko pour de salaire soixante salaire bu la Billahi. des fois di wax Covid de juillet de mars à juillet ci Covid bi ñu ngi par semaine un million par mois la ñu Covid un million pendant quatre mois

te cinquante mille des fois dina toog trois mois trois mois duñ ko ko fay muy teg ñoom ndóol bi am ndóoli match moo am senegal yëpp Macky Sall ku munul defar sa dëkk moom ndóol baa jële dëkk ku munul développer ndóol match fi nga xam ne foofu nga juddoo nan ngay développer Fouta lu tax Fouta di wax Fouta tamp yow ndóol match moo gën a ndóol Fouta te yow foofu nga soqe ko sa tante génn di la xas. sa tante bi nga xamne mo la ba nga juddo moom mo jël rabal jugge ba fouta dem kaw la kaw mu fatik sa papa ne ken du la tudd tank sa bàjjan bobu ñew sa bàjjan bi jugge ba fouta sang la dugal jox la laxas la ci ci ci ci ci rabal sa tante bobu mo genn mu ne sa keur papa defo fa dara defo fa gat sa papa mo defar nek bi am sengi, sama sa mam mo defar néeg bi am sengi.

Fouta Dakar nga xam ne ay 6 heures de temps 7 heures de temps mu ñëw ba pale nga koy làqatu maire boo xam ne moo la sàng jox la seeru rabat mu ñëw ba fuut ba pale nga koy làqatu doo ko recevoir sa benn collaboratrice moo obligé jël cinquante mille ne ko am paasal ndax doom ji ne ko baax na gedd noonu la delluwaatee Fouta bu demee la lay wax waa waa Ndulu Majji lan lay wax waa koñ ba Macky Sall de daf maa toroxal ndax ba muy dem leer na ma ne tàggu na ñëpp ñepp la tàggu mu ñew ak loxay nenam wer bobu gor la man da bu doon sama yaay day euh, euh, euh, gàcce dina ko ray mer bobu mer bobu jambar la mer bobu mo tok di netali lolu mak Sall ñepp la war ku war famiyam sa yaay mu war la benen mer ñu wane ko benen mer 94 ans def mamam la nee mak ba muy jang di romb Liberté 6 Nek xalé di romb Liberté 6 dañ koy woo di ko làkk tukulóor ne ko kii sa sa mbokk la demal nga nuyu ko mais dégg naa Macky day xool ni du mooyu continuer ni muy def xamul mbokk amul mbokk amul mbokk nan ngay ame Séné di nga faale Sénégal Macky Sall faale wuñu moo tax Sénégal takk c'est pas son problème billahi wallahi taala li am mars waruloon am ci affaire u taat affaire u saar taat même bu doon Sonko sax ma moo def mais li am warul woon am ba Sénégal di ñu am ay 14 morts mais bëggul Sénégal France la bëgg ak Dubaï ak Houston ak Émirats arabes unis yi ñuy wax ne foofu la am kër Sénégal na tàkk Macky Sall na Sénégal tàkk il s'en fiche comme de l'encarade billaay barki rasulaay sëriñ ñi nag bu ko ci jàppale mais Sénégal bu tàkkee na tàkk li Pape Alé Niang wax na na tàkk li musul am Sénégal na am Sénégal muy coup d'état mais yeen dund ni nga dé moko gën di jël juromi dërëm chaque jour sa xasawaayu gemmin ngaa yi ngay bal mi nga genn bu la kenn nuyo doo ko sax ñame fay nga dem ci boutique ba ñu poccal la nga fay juromi dërëm nga yor ko nonu ci ngeloli dem sa douche dadi boros mais bu doy boros bi da nga def boros affaire bi set noy def da ngay delu wat boutique ba mu pacalaat la benen juróomi dërëm ndax des fois mën nga boros ben yoon du set faalewul Sénégal wa APR faalewuñ ñu yenn dundi ñu reey la comme guimar sañan sax mo gën nga dem ñu lay japp ñu duggal may wax aïdou aïssou Diop Fall nan guimar sañan dafa bëgg prison bëggul prison yenn dundi bo boo bo boo xalé yi du guimar sañan lu mu nam comme Casamance la boo ko il est en forme. lan la namm jëndal nañ ko oto bu ko neexoon dem ci Casamance di lekk ci ci mango yi joolaa la musul xiif mais bu gisee xale Sénégal yi di dee sànq rek liir naa ñu ne xaw ma 3000 Séné 3000 bébé dinañu dee xaw ma ndax lan am na lu ñuy wax benn feebar du leen di rey 3000 xam nga mais Guy Marius Sagna xale yi ñoo tax ñuy xeex ñun xale yi ñoo tax ñuy xeex ñun lan la ñu namm yenn dund yi nga dee sax moo ko gën. billaahi nit ñaa ngi dee ci accident yi yoonam nekku ci nit ñaa ngi dee ci hôpitaux yi yoonam nekku ci mais ñu war a def dialyse dégg naa vingt mille personnes ñoo war a dem seen seen seen i rein seen roñoo baaxul il faut ñu dem ci machine machine yi war a traité seen deret buñ ko deful dañuy dee buñ ko deful dañuy dee soixante cinq mille kan moo ko mën a fay par semaine ñetti yoon kan moo mën a fay loolu soixante cinq mille par semaine defe naa lañu wax xaw est ce que du ñetti là? kan non euh, euh, il faut que moi tax là. di di perdre son temps di def ay live di wax or bi nañ ko pétrole bi les leen wax wax leen ci dundin ci bi Sénégal nit ñi xam li ñuy dund normalul Bros détail Sénégal rek la c'est pas normal Li ñu ñoo wara nous avons le minimum Nous sommes le ñu sommes la yalla Nous Nous yonent bi nee Nous le Touba nee na muñ leen Nous fait le problèmes Nous sommes le minimum. Nous le problème la kooku déglu leen Nous Nous liberté minimum. Nous liberté di leen wax ay waxu Nous di leen wax ay musique Wally Seck musique di leen wax ay Gaston Meng jël ay milliards jox ko Gaston Meng mu leen di tëggal ay làmb tey rek laa liir ma gis ñu ne bi Gris Bordeaux mi ngi Amérique pour préparer son combat avec Balla Gaye 2 ma ne xoolal ma ñii rek xoolal ma ñii rek mbër yi ah benn mbër nan la war a mën a am 4 ans combat Balla Gaye 4 combats parce que xam nañ ne moo ëpp nit bëgg neexal géejawaay géejawaay jox leen ko Ahmed dara laa leen wax. jox leen ko Ahmed Aïdara ñii il faut que ñu dégager leen sooy bu mu ko pousse